ci loo xamante ni bii mboolem presse bu Sénégal dañoo sàkku ay leeral yoo xamante ni bii dañ ko bëgg ci Serigne Bassirou Abdou Khadre mi nga xamante ni bii moo yor kàddu xalif général kullu murid Serigne euh, Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu bëggoon nag am ay laaj yoo xamante ni bii ku ne xam na ni màggalu Tuuba jubsi na ay fan moo ci des ñu bëggoon sëriñ bi andil ñu ay leeral ci yenn ay laaj yoo xamante ni bii taskatu xibaar yi ci Sénégal ñoom ñoo ko sàkku loolu moo waral ñu ànd koog ñenn ci ñi nga xamante ni bii am nañ ku leen teewal fii ci Touba ngir ñu fa yéene andi ay leeral ci loo xamante ni bii ay laaj la yoo xamante ni bii dina yokk suñu Pastef ay laaj la yoo xamante ni bii dina yokk suñu gëm-gëm ci sëriñ Touba muy ay laaj yoo xamante ni bii dina yokk. nan la ñuy gën a fonke dëkkub Serigne Touba bile. kon sëriñ bi euh, laaj bi nga xamante ni bii dinaa ko laaj mooy sëriñ bi dañu bëggoon nga baaxañu tuuti ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul digganteem ak boroomam. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi tedd yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen ndokkeel ci weeru tedd yi di weeru muharram nga xam ne ci la atum jullit ji tàmbali di ñaanal cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy alxalifatul am li tariqati muridiya suñ borom yàggal ko fi lool dëgëral taxawaayam ba mbooleem naaj yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa génn ko lépp suñu boroom may ko kàttan ak jur ba mu àggale ko na ko bëgge lii itam laaj naa ko ci ndigal démb leeral ko li ñu war a wax lépp mu joxe ci ndigal kon li ñu bëgg wax lépp ci ndigal lañ koy dégg nañ itam kàddu yi nga xam laaj nañ ko kon bi ci jiitu ni moo ko daa faral di waxee rek dafa nekk aada ju rafet mooy loo xam ne itam kenn waru ko ëppale sa bopp ndax at mu jot ma fàttali ko ak Cheikh Mouhamadul Fadil daana ko may ñi nga xam ñoo yëngatu ci presse yooyu jamono télévision amagut yu di ko laaj moo leen di tontu. te ñoom lu ñu def rek du tënku ci jamono ba àdduna tukki rek doo gis ñu def ko mooy aada ju rafet rek loola lu war a mën a sax la kon laaj bi jiitu ci jëmbi Serigne Touba ngeen laaj ñu wax ci tuuti ci jëmbi sëriñ bi Cheikhul Khadim suñu yaakaar tey ëllëg nga xam ne suñu yaakaar jëpp génn ko kon sëriñ bi mbiram ni ñu koy waxee rek géej la géej nag boo ci dugg boo ko jàkkaarloo moom doo xam fooy tàmbale doo xam dangay ne ca tefes gi la wala fële ku ne it mën nañoo bañ a gisante sëriñ Tuubaa loolu la ko suñu boroom defal ci mbiram booy waxtaan ci moom it dooy xam fooy war a tàmbale waaye li ci ëpp solo rek muy genn wet goo xam ne danañ ci indi tuuti tey fàttaliwaat ko ndax wax luñ fi waxutoon rek mënta am ndax alquran boo gisee muy tudd wazukur fil kitaabi ismail wasur fil kitaabi idris wasur fil kitaabi yooyu ngay dégg mu koy tudd mooy fàttali ndax doomu aadama dafa bindoo di fàtte kon faw ñu di ko fàttali la wàccoon ci alxuraan ba nëgën moom lañuy ñuy fàttali bu bu bees it amatul mbindum sëriñ Tuubaa it amatul kon lu ñu fi wax rek lu ñuy fàttaliwaat lay doon sëriñ bi nag fi mu dikkee ci jamono booba ñëpp xam na ne fekk ne lislaam tumuranke tumuranke na ci na ko rasulullahi waxoon ne bada al islaamu xariban wa shuyuur xariban sëriñ Tuubaa dikki ci contexte boobu bi boobu fekk na yéefari not jullit yi kéefar di bëgg a daj adduna rawatina Sénégal nasaraan yi ñëw ngir noot nit ñi jël seen koom-koom rekki seen ngëm soppi seeni aada soppi seen culture jëmbët ñoom li nga xam ne moom lañ gëm Sëriñ Tuubaa ne def li ñuy wax xatiyaatu xatiyaatu ci day naqari firi ci wolof mooy indi leneen mooy rupture ngeen koy tudd yéen Sëriñ Tuubaa loola def indi li ñuy wax badil badil it mooy lu ñu watee boo ko doon firi ci tubaab ndax baat tubaab bi dama koy moytu mooy li ngeen tuddee alternative ndax koo bàyyi loolu dara faaw nga jàppale ko dara Sëriñ Tuubaa bi mu dikkee ci loolu nag fekk suñu boroom ci ni mu ko dogalee yàlla rocci doole àdduna ci ci loxoy julli ji jox ko yéefar yi Sëriñ Tuubaa ci waxtu wala dikkee ci kaw suuf bi mu dikkee nag suñu borom lim ci jubloon mooy di xool nit ñi ba xam dañuy dellu ci gëm yàlla ak xool ëllëg fàttali loolu walla dañuy topp tubaab yi ba rekki ku seen kéefar Sëriñ ci waxtu wala dikkee bi mu dikkee itam mu indaale lu yees lu yees loo xam ne nekkut lu lu lu luñ sos dafa fekk ne ko suñ kilifa gu baax ko Cheikh Abdou Ahad Mbacké waxoon yoon wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon moo far mu ñëw gajj gajj ba yeesalaat ko ne yoon waañ ku bëgg a dem newal ñëwal ñu ñëwal ñu dem bi muy dikk itam dafa juur a jëm ci yoon wi ñu am ndigalu suñu borom itam mu woote bi mu wootee itam ndax li ñuy wax euh, théorie ak pratique xamu nu ñu koy waxee ci wolof mooy li nga xam ne dañ koy jàngale ak li ñuy jëfe dafa bokkut mooy boo ko noonu natt iman islam ak ihsaan ihsaan lu ñuy jëfandikoo lay doon Sëriñ Tuubaa bi mu dikkee huwa alladi baasa fi lummiyiina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim baatu tazkiyatu boobu foo ko fekk rek mooy tasawuf Sëriñ Tuubaa loolu la ñëw ngir indi ko la ko jëkk nag Mamour Anta Sali ne xam na ne yoroon na daara di jàngale loolu kon mooy li fi fekkoon mooy théorie bi Sëriñ Tuubaa nag pratique bi mu woote mooy li ñu fi indi tey muy jébbalu ndax jébbalu mooy jaayante jaayante ak jébbalu ndax jébbalu gone du ko def ndax ki toll ci juróomi at juróom-benn at bàyyi ma ko yóbbu ca daara ja kon day mel ne la muy def coobareem yóbbu ko ja bu weesoo fukki juróom jëm kaw nag loolu jébbale amatu fa moo tax booy ñëw ci sëriñ bi ne ko jébbal naa la sama boobu àddina ak alaaxira yaa jébbale sa bopp loolu mooy jaayante sëriñ Tuubaa loolu la indi muy lu yees indee ko foo xam ne itam da ci am digg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ko ne rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars ñii ma la booleel nga nekkoon ñoom di leen jàngal yoon woowu bàyyi ko te indi tarbiya mooy li ñu fi indi tey mooy li indi yoon wi fi tey bi ko Sëriñ Tuubaa wootee itam Cheikh Mahamadou Bachir junñu na ko teere bi nee na fa zahabal jullu wa baqiyal xullu ña ci ëpp dañoo dem ndax boobu miinuñ ko woon ñi amoon ak dogu nag ak ngëm ak am tawfeex suñu borom ñëw ànd ak sëriñ bi ca xamaguñ li ñu wuy si lu mu doon lu yéeme am ci nag ndax bi sëriñ bi wootee ñeen fukki nit yàlla yi nga xam ñoo ko njëkk a topp njëkk a jaayante moom ñëpp ay boroom xam-xam lañu woon ñëpp ay kàng fóore lañu woon ñëpp itam fu nit doon àgg ci diggam ak borom nag àgg nañ fa sëriñ Tuubaa kon loolu la ko suñu borom defal mu defar ñooñu nag yabal leen kenn ku ci dem defarewaat sanc ay dëkk ba yoon wi ak si fii danaa ci nett li jenn wax ak Cheikh Ibrahima Fati daa waxoon ne Serigne may gi de li muy rëy rëy bu dëppootoon ne jikko ji ñett ñi du ñëw doomi soxna yi ceddo yi doomi soxna yi ak caddo yi ak bokki boppam nee na doomi soxna yi lépp lu di jàng ci lu baax ak xam-xam xam nañ ko ba wuteetuñ ko fenn kon bu dëppatoon jikko yi du ñëw nee na caddo yi itam bu dee wàllu àdduna wut nañ ko ba am ko kon wuteetuñ ko fenn kon jikko jëlee nañ de bokke boppam bi itam nee na ay bokkam duñ ko kon bokkam yi jikko leen nekk suñ borom defal ko ci lu mu mës defal kenn mooy woote ñi gën a sës ci yow di say bokk nongu la doon say taalibe kon lu Sëriñ loolu la ko suñu borom njëkkee defal mu jël léppam nag jox ko suñu boroom nanguwul dara luy nuru sirki bokkaale boo xoolee xasida yi ba mu jeex sëriñ bi li muy tagg tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lépp ci suñu borom la koy delloo kooku doon lim ci bayit yi dee bari waaye xasida tawxiid yi fu mu tuddee rasulullahi ak may ge la muy rëy rëy julli ci yéen julli moom tagg ko kañ ko lépp da ko delluwaat suñ borom kon dafa jël léppam jox ko suñu borom jël léppam jibal ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu wax ne salaatu sitta bi mataxi sitta taatihi bata ma atisay dafa séddale woon at mi lii day julli ci rasulullahi lii mu ngo du ko tagg kon li mu doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lépp génnut tagg ko ak kañ ko sant suñu boroom wax ak màggam yëkkati ko wax dara loolu mooy jëmme Serigne Touba suñu boroom itam fee ci moom xar baax joo ne kenn mësu koo am ndax la ci jiitu rek nattu yi yi am yi ko suñu borom def ma si sute di dégg ci àdduna kuñ ko teg ci nattu tàmbalee ko ca ba ñu bàyyi ko Mbàkke bari dem ba jaar Ndar la ca xew Jolof ci eh, jeewal fa la njëkk jaar la ko ci suñu borom wax iza la lazina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar iza laqitum fi'atan fasbutu ba ju te fu mu toll rek suñu borom day waxante moom mu àgg Ndar suñu borom xamal ko ne ko wa iz bi bika lazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluuka ko yuxrijuuka wa yamkuruun wa yamkurullah wallaahu xayru maakirin kon moom suñu boroom moo ko doon gindi waaye ci xar baax gi mu njëkk a ci jeewal la ndax nett na ko ñëpp dégg nañ ko tubaab bi lañ naroon ak fañ mujj ak na suñ borom nooyale seen xol bi ñu àggee ndar itam ñu àtte ko ngir exilé ko fekk na sëriñ bi xam ko bind na ko itam asiru ma al abraari na asiru waa wa zanna al ida anni hunaaka asiru mu jox ko Ahmadou Ndiaye maa bi ni ko sëñ Moussa Ka nettalee ne ko dama lay firndee ne dinaa siwaat kon sëñ Touba lim def ci moom la jëkke mooy ñuy dem di la sànki yow nga ñi nga bàyyi sa sa ginnaaw yow nga leen di ñaanal ak di dalal seenu xeet di leen wax dinaa dellusiwaat ci biir loolu dinaa ci nettali ak Cheikh Ibrahima Fati wax na ne diiru sëñ Touba dina ci géej gi leetar bu ko sëriñ bi mës bind rek lam ko ci wax mooy na seenum xel la ndax fàttewuma leen ci bu doon ak kenn dañ ko xam ne dinaa war di fàttaliku kon sëriñ Touba may ko suñ boon defal bari na bopp ci waxtaan la ci gën yéeme mooy natt bi ndax dafa wax ne tukki bi li ko waral ca ëzal la ko suñ borom dogale ndax nee na yàlla dafa yëkkati lu mag lu kawe mooy lii tey lu gën xamul nu toll dajale mboolam ñu baax ñi wax leen analee ku ma koy indil mooy natt bi nee na kenn ju kenn ñemewutu jug dem wuti ko ñaana na suñ suñ borom nag xamal ko moom ci ndimbalam moo xam ne bu ko suñ borom waxeer lu mën am la mu xamal yàlla suñ borom ne ko man de mën naa ko mën naa ko am mën naa ko indi ndax inni xafisun alim nee na suñ borom dellanteeg moom wax ko ab bindanteeg moom wax ko nattu yi ak waxtu wi jot Sëriñ Tuubaa nee na ba àpp ba jotee dat ba jot nee na ci laa buur bàyyi kër gi bàyyi njaboot gi bàyyi lépp gent ngir rebuuti loola loola nag waxoon na ne amoon na daraje xutbaaniya ndax nee na laata may dem ci géej gi iimaan islaam ak ihsaan ñëw ma ci nabiyul mursal ñëw ma ci malakul muqarrab waaye nee na dama meloon ne ku nuyu ku amee xeetu lat ko nee na mu bàyyi xet gi ci sama loxo nee na ku ma nuyu ku ne nag wax ma ne ma jox ma lat ko te nee boo fekk ne ëwma ko nee na man kon ne li ngor ci man mooy ma fexe ba wuti ko loolu mooy yoonu géej gi suñ boon xamal ko ne ko nag natt bu diis lay doon ndax fii nga toll bariwaana nit ku fa toll xemmeem cëri waa ahlu badri ndax lu weesu la waaye ci doogu sëriñ bi ak ngeen ko ak bëgg a xeetali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tax moom mu mu amuk rek ci ne suñ borom róogi di la bindul ba xam lim attan lim attanul waaye bu ko róogi attanee rek jom ji ak fii du àttana ko looloo waral mu engagé wu dem liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa te boobu kat fekk na Serigne Touba seexal na mboolem lépp ci seex sa seex kenn ku ci ne sañ dëkk nekk fa sa mbooloo Serigne bi buur lépp bàyyi ko liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te nanguwul ko ku ko ci wétli nanguwutu ànd ak kenn astaxlisu astaxlisu li nafsi ndax la Serigne Abdoul Ahad Mbacké ne ba muy taxaw di ñaan ko ku newoon ci ginnaawam di ko wax amin sax amul muy natt bu diis ñu di ko yóbbu Gabon sëriñ bi wax na ne ci biir gaal gi ci laa déggee lu dul li ma ci suñu boroom xamal ne Gabon lañ ma jëme foofa la tàmbali nattu yi bi mu agsi Grand Bassam nattu foofu la tàmbalee nit agsi na ko ndax yaay Cheikh Ahmadou Bamba di jaar ci turwa ca kaw sëriñ bi naa ma ne cel wuyuma ko nee na mu ne damaa dégg ñu ne kat sama mbokk diw moo la jàpp ndax nee nañ nee nañ lii ci say taari bi nee nañ lii nee nañ lii sëriñ bi nee na bi mu tàmbalee di wax rek gaal gi tàmbali yuuxu bi mu tàmbalee ba tàmbali ko sonal rek gaal gi di yuuxu di yuuxu di yuuxu bañ agsi garam ba ñu tàggoo foofu la suñ borom ci xar baax yi mu ko wañ ci la bokk moo tax sëriñ Tuubaa wax ne azhaba ni llaahu fi garam ba qablu mubaarisi wa anni xalbasa kon Serigne Touba léppam ay xar baaxal ndax ñoom étape buñ ci toll fu ci ne mooy tàmbalee ca ndar ndax fa lañ ko njëkk a boole gaynde ndax lu wér ne sëriñ bee ko nettali moo ko nettali archives yi bind ko jàppoon ne dana ko mën a lool xiifal ko xam ngeen la la xew maa koy nettali ci démb ci julli géej gi Serigne Modou Khalifa Niang ñi mu ko nettali ñuy dund fi ne mën nañ téeméer nit kon loolu lu wér la ñu jóge fa jaar ndakaaru boole keeg aw yëkk bëgg mu lox ko wa taaratil baqaratu ka anna laha ajniha sëriñ bi ko dund ci loxoom nee na nag wa naaw ba mel ne lu ami laaf kon sëriñ Tuubaa fu ne jaar na fa état bu julli géej gi ñépp xam nañ lam ci jublu woon ndax neewoon nag wóorum woon sama bakkan dana dell seen diir waaye nag ndigalu suñu borom lii mu ma dénk li mu digle gisuma lu jar faat ko ci kaw suuf moo tax mu sànni der ba ci géej gi suñu borom téyel ko ngir xam na ne du sawara mënta lakke ndox mënta màndal aw ñam mënta suural lépp de fekk mu ànd ak dogalu suñu borom Sëriñ Tuubaa xam ne rek géej géej lépp suñu borom moo ko bind te moo tàggal tàggatal bato yi yëpp ñuy daw ci kaw ndox mi kon la téye loolu war naa téye doomu aadama mu sànni bi géej der bi ci biir géej gi julli dellusiwaat tubaab yi wax nañ ne bi mu dellusee li ñu ko wax ginnaaw accident bu mag boobu bokk na ci seen bind lañuy wax dañoo wax ne dañ ko ne lii nga def de xame nañ ci ne bu la bu la neexoon du dellusiwaat xame nañ ci ne jàmbaar dëgg nga xame nañ ci ne ku ku ku amu fit la sëriñ Touba jóge foofu ba àgg Gabon façon natt bu seenum xel dem teg nañ ko ko la ci jiitu mooy nee na li ñuy tudd këri këri kërifoor tey mooy selibu yoon lañ koy wax ci wolof mbedd moo xam dañ koo teg ci digg foo xam ne nit ñi dañ ko rombay dem sëriñ bi nee na wërtaluñ moom nekk lu am mbaar ca la nekk taw bi di sotti ko ci kaw mu nekk ci natt yooyu diw juróom-ñaari at natt yu metti fu ñu jàpp ne moo gën a metti rek doomu aadama mënu fa dund ñu yóbbu fa sëriñ bi mu di ko dëkku muus ca salit muusu ko jàmbat la ci gën a yéeme nag mooy liggéeyam yu tedd yooyu yi nga xam ne nee ca la ma suñ borom setal ci mbooleem ay bi doomu aadama ca fa la ma suñ borom defee ma mujj ba mel ne ab jant ci jékkati ko ci liggéeyam bu tedd boobu natt bu ne teg nañ ko yóbbu nañ ko ci barab boo xam ne mooy fi ñuy wax may yóbba maayum ba tey ca li muy firi ci seenu làkk mooy nañ dem seeti ba xam mënees na faa dëkkam dit ndax foofa am na ci benn docteur allemand boo xam ne rapport ba mu bind bokk na ca lam ci wax mooy fii ku ñu fi indi ku ne dañ daa war a yóbbu ci yoon ku fi indi ni ku ne sax yow la ñu war a yóbbu ci yoon ndax am na ay ngoddu yu fa daa nekk di matt yoo xam ne ku matt sabakan du ko nettali Sëriñ Tuubaa di ko dékku taw bi du sotti ko ci kawam bu demee ba tàmbalee bind foofu xam ngeen jaww jëne bindoo ndax bokk nañ ci dañ ci jubloon bokkut ak climat bii ñu yóbbu ko fa gaalam yi moo koy yëkkati boppam te nangul ko ci dimbale kon loolu la nekke tubaab bi du ko nattu di ko tege diis waaye nag suñ boroom dogal la ci jëmmam ne saa suñ xëyee Sëriñ Tuubaa mbiram di leen di gën a jaaxal dugal lañ ko ci mu yeer Sëriñ wax na ne soxna jaaraa fa génne yëkkati ko ne ko buñ gàllankoor sa liggéey kon pexe mu sam xel dem def nañ ko fa ba ca mujj nag mooy bi nga xam ne mooy zuhuru ahli badr mooy feeñu ko ahli badr loolu mooy dañoo dajale ñi nga xam ne ñoo dàq fetal ba mooy am na foo ko sëriñ bi junn ci xasida yi wahaba lil wahaabi fi sulaasa maa yuxjilu al asrata wa thalaasa def leen kuréel ñoom ñëpp ñu diiraloon leen jëmbi sëñ bi ñu tiirante ñëpp faatu kon Sëriñ Tuubaa wax ne najawtu min fitanil aadaay is qasadoo nii bil madaafi turan wa sakaaki kon natt bu sam xel dem teg nañ ko waaye luñ ko bëgg a teg ci natt ni ko doomu aadama yi di yéegee ni la ko yéegee lu weesu xamal nañ ko ne ko natt baa ngi bëgg ñëw waaye ni ko nit ñi ngi ko yëg ñu teg ko natt boo xam ne fa mu jub du fa mën a tëdd fa mu tëdd du lépp mu di ko mu ko muñ te dara taxut jëmmam taxut loolu xet xet li xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndax wax na ne lawla alquranu wa xidmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma bittu fi dunia laylatan waxida nee na bu toon ak alquran ak liggéey rasulullahi sallallahu alayhi nee na duma fanaan ci àdduna génn guddi kon xet li xeetu rasulullahi sallallahu alayhi rekk tax waxoon na it ne li ko tax a tukki ci géej gi mooy ni mu ko waxee rek mooy xet li xeetu rasulullahi sallallahu alayhi ak daraja ji mu war am mooy nekk abdullahi wa xaadimu rasul kon noonu la fa nekkee ba eh, juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer mat muy thamaniya xijajeen illa qalilan ci xam nga ne suñ gaawaan fekk na ko fa daana ko yónnee waxtu ne ay addiya suñ mënuloo dagana fekk na ko fa ba mu ko fay fekk ma ko fekk ca fi ñuy wax làmbar na foofu moo gën a métti làmbar na boo sëriñ bi ci diggu àll lañ ko bàyyi lañ ko bàyyi moom bi mu agsee di wër di wër di wër bañ ne ko fee la nekk bi mu agsee mën na seen jëmmi sëriñ bi ndax boo fekk na yi matte ak li nuroo ki ay ay ay fel wër na jëmmi sëñ bi ba mënta seen jëmmi sëñ bi waaye sëriñ bi saa su waxtu julli jotee mooy noddal boppam liqaamal boppam jullil boppam bi waxtu waxtu noddu jotee sëriñ bi ne allahu akbar mu seen na xam ne leen nit la mu xam ne sëñ bi mu àgg ci moom te ko jàmbat mës koo tiisloo li mu bind ci xaside yëpp lépp mooy danaa dem te danaa dellu siwaat kon moom lu mu am ci ndam rek gàcce gi ñoo ko toll ñoo ko yóbboon toll na ndax ñoom seen jëm bopp ñoo dem ba bindal seen bopp xam ne ñoo juum xam ne kii dara lu jëm ci biiru àdduna néew ci moom moo tax ci biir loolu dinaa ci nettali benn rapport boo xam ne 1918 la mooy commandant cercle boobu nga ñu ko boolewoon ci njaareem musi musi yu ñëpp dégg nañ ko muy commandant euh, artère Leslie rapport bi mu bindoon ci Sëriñ Tuubaa dafa wax ne la def Cheikh Ahmad Bamba xutwatun quwwatun fitriya boo ko doon firi ci arab nee na Sëriñ Tuubaa am na force bu ko suñu borom bindaale boo xam ne force bi kenn xamut fu mu kenn xamut nu mu jóge kenn xamut nu mu toll nee na topp goo ko nit ñi topp itam jéggi te dayo ba xelam doomu aadama mënu ko xalaat nee na itam bëgg yi ko nit ñi bëgg nag xiir na leen ci lépp lu mu leen wax rek danañ ko def sa duñ ci xalaat nee na kon maa ngi wax ne yonent yi ak suhadaaw yi ak ñu baax ñi buñ dellusiwaatoon dañuy ñee Sëñ Tuubaa ci jikko yi ko yàlla defal nee na jukko yi bokk na ci xàmmewul ab soppeekum noonu nee na itam aw yiw lay jëm di ko jëmale ci ñëpp nee na ñu may tudd muy yonente yi ak shuhada yi ak saalihin yi woo déclaré woon ay guerre sainte te amuñu woon genn wàllu doole yàlla jox Sëriñ Tuubaa ba noppi muy woote jàmm kon soo su seere te dañuy wax ne alxaqu maa shahidat bihi al a'daw Paul Paul Marty ñëpp xam na ne bokk na ci ñi gën a màgg ci noonu sëriñ bi ndax ma sa bind ci du baax am na ci benn rapport boo xam ne dafa wax ne kii di Cheikh Ahmad Bamba dooleem àgg na foo xam ne ni muy màgge buñ ci jugut fexe ba na ko dana dem ba daj àdduna dane nag mboolem mission bi nga ñu mas a yónni ci Afrique rawatina diggante Tunisie Algérie ak Maroc seenuñu sëriñ Touba ci mission yooyu ñu daa sant ci ñoom fi mu àgg ci diggam ak boroomam itam kenn xamut fu mu àgg mu ne mustawa bi muy waxee ci arab mooy niveau mi nee na kawe ne ko kawe kawe goo xam ne ñi nga xam ne ñoo nàmp langue arab sax xamewuñ ko noonu nee na xasaay itam itam bu tasaaroo ci àdduna fu mu àgg rek mission dana fa àgg kon nag bokk na ci li ñu war a gën a xeex mooy nañ fexe ba nit ñi bu mu tasaaroo waaye nag li ci suñ ndimbal mooy lépp ci ay taalibeem jàngul kon sëriñ Touba noonu la ko suñ borom defal mu dellu siwaat nag ñu yóbbu ko Mauritanie mu àgg naar yi faq Mauritanie dañuy wax ne Mauritanie dañoo wuute ci lépp ba mu des mbiru Serigne Touba boo fa demee ña bokk ci attariqatul qadiriya ña bokk ci attariqatul tijaniya ñu bokk ci atriqatu zazile yi ñëpp a nangul Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ko fa mu sàmm mu seexal fa ay nit wane fa xar baax yu baree bari yoo xam ne tey buñ toon toog fii di ko liw duñ xam fu muy àgg mu ne fa lu mat ñeenteel ngir mottali mission bi nga xam ne waroon na koy def ci Gabon na mu ko waxee man man zanna zayri rib aami aksasi misla masiri rasa aami jaysasi tabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yakun cheyru aksasin siwa jasa man lie xaada baxdu wax da najasa Cheikh Sidiye mi nga xam ne ci saw bu saaxir si moo taxoon ñu yóbbu ko Mauritanie ba mu àggee moo njëkk way Sëriñ Tuubaa kañ ko tagg ko ne acheikhu ahmadu nicmatun awlaaha haasi alxalaaiqa kullaha mawlaha sëriñ tubaa xéewal la gu suñ borom xéewal bindeef yépp foo ko yàlla yóbbu rek xéewal ñoo ñaar fa alhamdulillahi allasi naamauhu laa yastatiu ibaduhu ihsaaha wayu wayu kii maa ne yoo xam ne kenn mënta natt ne xayba dafa wax ne laajkat yi ñi ñëw ci sëriñ tubaa sëriñ tubaa war xar kanam bu bu talli ba fa ka annama tuutihima ataha day mel ne ki lay jox si alal mbégte ma ngay àndal Sëriñ Tuubaa buy joxe mbégte moom lay àndal ci ki muy jox Sëriñ Tuubaa noonu la nekk ba mu Mauritanie gépp nongul ko ba mujj nag moo tàmbalee tasaaroo ci yenn réew yi arab yi la ko suñu borom doon liggéey loo mat mu jële fa mboolem lu baax lu fa newoon fala wér du maaxuus juddoo rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam jox ko koy yàq fa laa mën a aman jeex ñu indi ko ñu jële ko fa indi ko ci yéen Jolof ngir man koo isolé ci barab boo xam ne nit ñi duñu fa mën a àgg ndax ci yéen ba fi ne xam ngeen ne neexutu dem amatu yoon te loolu fi mu nii mën na téeméeraat te ba fi ne neexutu dem ñu ne foofu bu ñu ko fa yóbboo nit ñi luñ jàmbaar jàmbaar ak luñ bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa duñ ko mën a atal ñu yóbbu ko fa nit ñi def xelef xelef ba mujj foofu sax moo duñ ko dékku Sëriñ Tuubaa tàmbali nag dafa defar ni ñi defareen woo xam ne dem na ba ñoom ñoo xam ne lii bu continuer dana mujj Sénégal yëpp daañu defaru ndax Sëriñ Tuubaa ñëpp daan leen defar ba ak yàqu weesu ñoom ñu jële ko fa indi ko njaareem ngir illa ji ñu waxoon wax ne bu ñu ko fi indee ñam xas defar jeex na waaye gone yi cinéma yi ak marché daan leen fab bi ba bu ëllëgatee si bi la Sëriñ Tuubaa bëgg def ci ñoom du nekk ñoom fekk nag foofu la Sëriñ Tuubaa mbiram di yëkkati ko raamu masiri ila jurbel la daal asasi law aayenoo sirra maa fi sayri ma aramu foofee la ko suñ borom wane la nar a xaw ginnaawam foofee la ko suñ borom wane la mu ko daali woon ca maayom ba ndax ba mu sampee ay bant ci buntu néegam def ko jàkka gouverneur bi da ko ne fii jàkk mënu fi am ndax yow da nga bëgg yàq sama soldat si sëriñ Tuubaa taalif xasidak rabbana arrijna min haasihi alqaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran raditu an il mawla taala lasi rabba fuaadi wa axnaani bihi rabba ba mu àggee ci la huktub salaatan maa bi alihi wa bihi masjidi rahba suñ borom xamal ko ne nangu naa sa ñaan te la may ñaari jumaa te bi danga ci dëkk sa mooy jumaay njaarim ak jumaay Touba. ka nga xam ne mooy ci xoloo gouverneur ba rek suñ borom def mu daal di ñëw njaarim bi mu dikkee sëriñ borom ko suñ mbënd ñëw dagana moo ko bind ci irwa onadim ñu ànd mu wër ko ba mu jeex nee na sëriñ bi ne ko noonu defee ak sama bant yooyee yow mi doon xuloo ngeen moo tax la Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké waxoon ne li ma sëriñ Touba wax ma teg ci sama bët li ma wax te tegugu ma ci sama bët laa bu ma yoroon kaasu kafe mu wóor man lii kaasu kafe la la ma Sëriñ wax te tegguma ci moom laa gën a gëm te booba la ko indi dafa nekk fii ci Daaru Xudóos am koy jàng waccaal bihi daari yekkal madina barakatan wal kaabatal masuura kooku mel ko xaw sikk sàkk mu ne ko mbaa danga ko sikk sàkk ci la ko tegal wax jooju kon ñu tënk foofu rek ci jëmmi Sëriñ Tuubaa ndax sëriñ bi xar baax yi boo ci tàbbee da nga dul fi ngay tàmbalee ak fi mu yem waaye ñoo xam ne suñ boroom defal na ko lu mas a defal kenn ilaya qaada llaahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini foo ko làmb ci mbirum Sëñ Tuubaa fekk ko fa ndax nii ko nit ñi nongule ni jële seen lépp jox ko mu gën a leen seen jëmm gën a leen salaala Sëñ Tuubaa ku jëkk am ci àdduna te kenn amatu ko kon Sëñ Tuubaa mbiram sant yàlla bi mu ñu boole moom bi mu ñu defalee tawféex ñu bokk ci ak njabootam te waxoon ne sama taalib yi kat faggul naa leen lépp lu mat a faggu faggul naa leen àdduna alaaxira ju ant ak xisaab ak teraanga ju ant ko coono loolu la ko la ko faggul kon moytoo ko fay kon li ñuy war rek mooy góor góorlu rek ci ay ndigalam ak i tereem suñ kemtalaay kattan te jël suñ lépp jox ko na te bañ ca desal dara ndax sëñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne sëñ Tuubaa du fecc def saako waxoon na itam ne ku ma jox sa lépp ma jël sa lépp téyel la ko ku ma jox sa leen téye sa leen la nga ma jox ma defaral la ko neewoon na ñi ñëw ci man itam ñaari xeet rek lañ nee na ki nga xam ne àdduna ko indi nee na ak ki nga ki nga xam ne àdduna ko tax a jóg ñaan yàlla suñ borom jox na ba mu doy sëkk te soxlu ci dara ñaan nit nag boo ko toppee ngir dara bu la ko joxee wàccoon ak yow ki ñëw ci man ngir àllaaxeer nag lañ fa bëgg mënal naa leen te dinaa leen ko defal loolu nag boobu engagement mosuma dégg am na genn kilifa gu mag ab xelu la ci tarixa bu mag waxoon na nit ne ko Sëriñ Tuubaa li ma gis ci ay mbindam ñu ne moo ko bind bu fekkee lu wér leen moo ko jëlee ci moom moom du nawlu kenn ndax engagement yi mu jël mosuma gis ko jël ma ne ko nag la ci gën a yéemite mboolem mbind moo gis Sëriñ Tuubaa bind ko ci ay xar baa xam ne ki mayam mbind la woon moo xam lépp da ko jël bind ko tëj ko ci yàlla denc ko waaye soxlawutoon sax nit ñi xam ko loolu mu doon dee yàlla diggam ak boromam la kon nag xam naa ñu tënk ko foofu rek ndax yeneen laaj yi nga xam ne war nañ ca jëm ndax sëriñ bi moom boo ci xasee ba tàbbi